au lieu de comme ni nga ko daan gisee mercredi wala des fois jeudi. le jour et l'heure change. exactement. oui continue bi surtout également. voilà euh, c'est-à-dire euh, yeggaguñ foofu nag. Ah, euh, parce que on ne effectivement effectivement dañuy anticiper forme la quoi. mercredi la war andi nañ ko mardi. Mhm. après midi la war andi nañ ko kii. maintenant on attend le communiqué parce que. là aussi. Euh, on avait l'habitude de lire. Euh, des décisions. Euh, voilà. décret nomination yeeg les mesures législatives. Hmm. bon parfois dina dina gudd les les les les de Abdou Karim Fofana. Hmm. maintenant ce sera du professeur Sarréen. Hmm. bon daal la man de bon bu doon am na lu lu may xaar. sur le plan formel. que communiqué yi gën a synthétique. mu bañ a kilométrique. comme dans un langage. simple clair et accessible à tout le monde parfois day am di benn accent savant bu ésotérique bu compliqué bon c'est un professeur mais na hmm. wàcc ci niveau sénégalais lambda bi hmm. pour que euh, ñu mën a comprendre aussi maintenant euh, tamit di communiquer parfois voie euh, orale et que les relais de communication parce que waaw hmm. voilà RTS ak ses démembrements au niveau régional ñu wax ko ci làkk yëpp ah ah. waaw sénégalais yi yëpp. xam ak foo mënti ne conseil de ministre daf la war a fekk ba ca sa àll ba ngay bayee. ñu wax la lam euh, lañ ci jël comme décision nga xam ko parce que implication wu société bi ci euh, euh, implication citoyen yi ci nit état bi di doxee jàpp naa ne ces trois dernières années là à des niveaux insoupçonnés da ngay gis ñoo xamante ne bàyyi nañ ko xel di ko topp. Hmm. donc kon. donc tu penses que dañ ko war a décentraliser. conseil des ministres yi nga xamante ne tey tàmbali nañ ko fii non pas comme le comme le Mboumbaay bon waaw waaw est-ce que du du nekk non ankay loolu formalité la luy lekk xaalis bu bari luy jural ñuy am hmm. benn xaalis boo xam ne am na fu mënoon dugg peut-être euh, wala aider fi nga xam ne fañ lañ fañ lañ jëm moi qui qui qui qui était ci euh, yenn conseil des de décentralisé mhm. xam naa ne euh, ñi leen di accueillir dinañ ci am plus-value mhm. hôtel yi dinañ dund Euh, même jaaykat yu ndaw yi dinañ ci c'est-à-dire dañ ciy sentir seen bopp carrément parce que en fait ça rend euh, le truc plus plus plus vivant et puis euh, conseil de ministres bi Dakar moomu ko waaye attention du conseil des ministres du Dakar même conseil des ministres centralisé yi day amoon na Dakar. waay oui, département de Dakar très bien parce que boobaa dañ ko yóbbu gouvernance au lieu de palais. alors donc gouvernance su Kaolack Fatick. Tamba et cetera ñu def fa des conseil des ministres conseils des ministres yooyu noonu boo xoolee communiqué yi day euh, day day day centraliser wu ci région bi. Mm-hmm. ses potentialités. les projets yi nga xamante ne moom lañ fay am bon maintenant je parle pas de dëkk bi digg nañ ko tant de milliards yu dul mës sa ñëw loolu moom euh, aussi euh, réalité la woon mais je pense que j' ak à Kaolack. ak Tambacounda Sédhiou voilà yooyu noonu yëpp euh, way Tamba on était ensemble <laughs> donc kon euh, yooyu euh, jàpp naa ne bi mu ñëwee foofu noonu am na loo xamante ne apporté na ko ci l'animation économique gu dëkk bi mm. mais mesures yu ñu fay jël aussi di nga gis ne day am solo donc je ne suis pas contre centralisation décentralisation maintenant premier conseil de ministre ok premier conseil de ministre président Macky Sall ak dernier bi dama leen doon def benn étude comparative comparative ouais. premier bi ak dernier bi mais gis nga dernier bi hmm. ña doon xeex premier ba ñoo fa nekkoon mhm. je euh, il faut il faut waaw euh, bon maintenant euh, ci ci ci kii étatique euh, c'est normal am comme muy doon soog yegg si mais luy il était premier ministre il hmm. était ministre il était DG mais euh, benn séance de coaching à au président Diomaye mais hmm. qu'il fasse euh, du, de, la rupture comme ñoom li ñu ko sentiré pas mm. euh, topp benn orthodoxie bi mais daan am voilà maa ngi dégg bu mel ni Cheikh Bamba Dièye wax ni day tirer en longueur quatre heures de war nañu parfois parfois parfois du dara ah. parfois ay waxtaan la président Macky Sall li ëpp ci conseil des ministres yi li li gën a jël temps bi mais da doon jàngal état maanaam mel ni professeur bu toog ak ay ak ay <laughs> élèves ndaw élèves yu nul ah ah, ah, ah moo doy noonu lay demee euh, am na kii euh, benn ministre bi mu jëkkee dugg conseil des ministres ba génn wér bi ala affaire bi la ba da ko awre ah, waaye ju day lañ toog grand bi ñu lii ak lii fii ngay signé tëbal fii <laughs> xam nga yaa ngi comprendre du coup euh, jaa oui bien sûr li ko looloo koy jëlal temps bu bari bi ba 18 heures oui moo tax on se rappelle conseil des ministres je pense bi mujj bi ñu décentralisé woon à Thiès mhm. bi ñuy def euh, euh, xaw ma conseil présidentiel lañ ko tuddee woon où on a des ministre ak les euh, exécutifs locaux yi ñuy interpeller le ministre Mariama Sarr yaa ngi rappelé wu ci benn projet boo xam ne mu ci waxee waaw <laughs> mu recadré waat ko nekk assez hmm? voilà yooyu noonu c'est assez illustratif de l'ambiance bi régné hmm. ci biir kii boobu noonu hmm. mais là on n'a pas on n'a pas on n'a pas trop de politiciens donc on n'aura pas trop de bavardage parce que ñoomit euh, xam nga ay politiciens rek seen waxtaan euh, je pense que le général euh, Tine il n'a pas le temps de de, de suivre les, les les développements de El <laughs> du coup voilà mooy loolu jàpp naa ne daal synthétique aussi bien ci contenu bi mais aussi ci communication bi après jéem a innover mm, ci mu mën a accessible ci langage yëpp mais nag mm. que le conseil lui-même puisse impacter dans les poches et dans les ventres. dans les poches. ak ventre. Ah, ci ventre biir yi maanaam. na faj xiif xaj ndóol. faj ndóol loolu la am solo oui mami rupture à tous les niveaux. conseil des ministres également xaar nga. Euh, enfin je suis très d'accord sur le plan communicationnel comme il l'a dit servir de relais surtout pour que askan wi mën ci jot. parce que la mm. plupart du temps ce qui est dommage mooy ne dañoo dem finalement dañoo démystifier toutes les décisions qui sortent des conseils des ministres. Mm-hmm. soit APS moo koy bind. wala RTS moo koy publier ci journal au-delà de tout cela il même plus ce travail de traitement d'information <laughs> bi yëpp dañ ci jot mu yam rek hmm. sur euh, le soleil euh, notamment ba même plus le soleil ne le faisait plus depuis un moment bu tombi l'APS quand même hmm. c'est un site boo xam ne en général bu conseil des ministres amee mën nga ko fa lire wala euh, au niveau du journal de la RTS man man je suis traumatisée par les conseils des ministres décentralisés ah. en réalité je suis archi contre j'ai jamais été d'accord pour ça parce que je me suis dit pour la toute bonne est en vrai parce que il n'y a jamais eu non ce que je veux dire ah, par là j'ai jamais été mais non ce que je suis ce que je suis en de dire mooy ne Moussa Pape Moussa pour mën a apprécier benn. dama ne ah, même si on ne se déplace pas on suit l'information quand même. waaw dama ne dama ne mais Pape Moussa dama ne la. Mhm. on n'a pas besoin d'y aller tout le temps pour savoir ce qui s'y passe. on est des journalistes. on a certes l'opportunité d'y aller de temps en temps mais si on n'a pas l'opportunité d'y aller on a la même information que vous yi fa dem. ce que je dis et je le maintiens. Mhm. mooy ne les conseils des ministres décentralisés pour a eu beaucoup de conseils des ministres décentralisés qui n'ont jamais été à la limite audités maanaam mënuñu wax ne ba ñu fa demee ca région ba ca à telle époque bi ñu fa revenir am na temps de réalisation bu fa ah. jot a def am na fu mu yam fii pour que ñu mën a yeggal fii kon li ñuy wax li may wax waaw d'accord yow mën nga ma ko wax mais dama ne les ministres ah, ak rapport ak conseil des ministres waaw d'accord inauguré ay mbir waay dama ne la. Ah. laisse la terminer conseil des ministres décentralisé ya. Ah. Mm-hmm. ña fa nekk ci boppam par exemple le cas de Thiès. Mm-hmm. les habitants de Thiès eux-mêmes. on dit que conseil des ministres bi jaratul ñu ñu ñuy génnee ak di ñu déplacer pour la toute bonne et simple raison que ñoom gisuñu ci seen bopp. non te dama ne man man je me base sur des rapports et des papiers qui ont été écrits je n'ai pas vu mm-hmm. de rapport écrit me disant que conseil des ministres bi amoon à telle voilà tant de taux de réalisation bu ñu fi def am na nangam bu ci des yow xëy na juriste nga koy lijjanti man journaliste bu ko waree di ko gëstu it war naa koo am ci en matière d'information et je ne l'ai pas eu. évaluation je n'ai pas eu cette évaluation là donc. je suis pour bu ñuy def conseil des ministres ñu def ko ci état bi nga xamante ne fii la nekkee nii ci Dakar. ko wax du ko wax. non dama oh, oh, ah, a eu a euh, les gens l'ont apprécié euh, am na parce que boo demul population yi laaj leen impact bi. Mhm. mais munoo munoo toog Dakar toog sa euh, plateau mais amul impact. Mhm. parce que dama dem laaj leen parce que man au début j'étais contre l'idée parce que je mhm. ma demee nag ba dem xool xam naa ne effectivement am na impact te da ngay dem. day am ay inauguration day am ay projet mais pour des inaugurations est-ce qu'on a besoin de décentraliser un conseil des ministres yóbbu ay nit am benn bambu la nit ñi toog waruñ toog bi budget du corps et on la laisse terminer après nga s'il vous plaît waruñ seen ministre rek waruñ ko d'accord je suis d'accord mais on la laisse terminer après comme ça nga de toute façon il va me laisser ah. terminer parce que il y aura l'élégance de ce plateau là je suis conforme par rapport à ce que je dis te sama gëm-gëm bopp la te du ma ci wàcc mooy ne dama ne man ba léegi gisuma rapport bu may firndeel ne dama ne évaluation jot na fee am on a parlé de coût de milliards ici et gisuma ban impact la am je le dis et je le redis donc pour le conseil des ministres bi nga xam ne moo war a am nii hmm. Ousmane Sonko et sa nouvelle équipe ça un conseil des ministres boo xam ne ñu ci bari ci ñoom jotaguñu defaguñu passation de service donc am institutionnel boo xam ne prise de contact réellement lay doon mm. ça va mm-hmm. permettre aussi ñu définir yenn orientation yi parce que yenn yi dinañ ko def consultation yi mm. mais conseil des ministres bi mooy définir en réalité li nga xam ne moom mooy la feuille route de ce mm. nouveau gouvernement là mm-hmm. par rapport ak li nga xamante ne mooy yoon yi ñu bëgg dem ak fi ñu bëgg tegu donc c'est en cela ce sera important et puis les conseils des ministres aussi c'est aussi l'occasion pour pour les yenn yenn postes yi daan nañ ko xaar mm-hmm. trop dis nga dañoo demoon ba finalement yenn conseil des ministres yi décision yi nga xam ne da doon impacté pour la population intéressé tu wala nit ñi. décret wàcc directement ci décret bi nomination yi ak yeneen yu ci topp. voilà peut-être que loolu aussi bon ce sera de vouloir mm. il en reste yoo xam ne il va falloir définir trouver les bonnes personnes. yi nga xam ne ñoo koy mën a diriger ak mm. yeneen yu ci topp. Mm. mais vraiment liñ ciy gën a xaar mooy ne tànn nañu ko nomination bi leen PM di jox euh, sous bien sûr euh, la coupole du président de la République Bassirou Diomaye Faye mhm. que les orientations seront claires à partir d'aujourd'hui ñi ci jotul la def de service également une fois qu'ils auront les dossiers en main dinañu mën a xam ministère bi ñu yoroon fan la yam parce que c'est mm. l'occasion ñu saytu fu ñu mën a yam ba nga xam ne dinañ mën a définir la trajectoire également et la route à suivre ci kanam finalement nous on est tellement dans le cérémonial euh, ba lépp loo xamante ne maanaam euh, ndajale boo xam ne dafay dajale ministres yi nga xam ne ñoom ñoo fay toogandoo tey et puis dinañ mën a xam réellement aussi même dans le procédé par rapport ak euh, li nga xam ne mooy les urgences à traiter le conseil des ministres au sortir dina ko mën a définir donc ça nous permettra vraiment ñu mën a xam la feuille de route. Mm. bi nga xam ne moom la ñu dénk ministre bu ci nekk. ak ku ci nekk itam yoon bi nan lay tëddee mais xam naa ne sa va pas être un boulot simple pour eux. parce que mm-hmm. dès le début. wane nañu ne liggéey la ñu bëgg. il va falloir s'attaquer vraiment aux dossiers urgents yi nga xam ne le président Bassirou l'a dit confirmé par le premier ministre et par certains ministres yu jot a def. dëkk bu métti bi nga a wàññi. ah oui il faut xam naa ne moom korité moom la ñu rëcc parce que ñoom liggéey bi ñu ngi ko annoncé. borom kër bu nar jënd ña. oui yow Ngoné moom certainement war nga am une idée ci nan la ñu conseil des ministres bi. waaw <laughs> idée bi xanaa toog xaar parce que mën a